école yi bëri ku ci nekk ak ni muy interpréter àdduna ni muy doxee te à la base fële lépp di tàmbale mooy ci yar bi ak njàng mi Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy daf doon waxtaan ci 1997 ci stade Amadou bari bu Géejawaay mu ne ku ci nekk nanu la yare na ngay jànge mu ne ni ngay jànge mu ne noonu ngay xalaate na ngay xalaate noonu ngay soppe te na ngay soppe noonu ngay mébate waaw wallaay ndeysaan mbir mi mbir mi foofu la wéeru parce que li ñuy def il faut ñu xam ne romb na kaye ak big ndax kaye ak big benn forme moderne la rekk ci leneen lu mag ñi taam woon di yor àlluwa di wut daa di wut xalima am na ñu yàgg a sonn ci àdduna ngir di ko wutal seeni sëriñ ak ay ndongom ku mel ne ah Cheikh Ibra Fall sasoo woon na lu mel noonu ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon lii du du du du caaxaan dafa fekk xëy na événement bu amee la yàlla dogal ca jamono ba muy amee dina tax parfois ñu am ñuñ ko ñuñ ko tuddee waaye moomuñu ko lii nii ñi mu nar a tegu seen loxo man joxuma leen ko de waa Cees leen ko jox waa Cees leen ko jox yàlla xam na ko li tax waa Cees leen ko jox ndax nag ñoom ñoo dajale ñoo cotiser jaare ko ci impo jaare ko ci taxe ak jaare ci loo xam ne dafa jóge ci état bi ñu wàcce ko ne fonds de dotation de la décentralisation la euh, ñu war koo jëmale ci ay secteurs yu précis te waruñu ko jël nag yóbbu ko feneen kon loolu waa Cees ko moom mu delluwaat ci waa Cees yi ko gën a soxla loolu mooy solidarité ci cadre solidarité boobu ngeen di jàppe ni ci la événement bi amee ndax pour dëkk bi dox dafa am ci ponk yu mu war a wéeru benn bu ci nekk dafa war a dëgër dund ak njàng wér ak wérle kiiraay ak yoon loolu mooy saxal jàmm jaanu jàmm ji yaatu senegal jëm kanam du leneen mu mel ne bii ci la bokk muy njàng ndax nit ginnaaw ba mu dundee nekk maanaam mi ngi lekk mi ngi naan solu dëkk ba nga xam ne nit lañ ko tuddee njàng mi moo koy may bu génnee këram mu xam ndax day dem càmmoñ wala ndey joor wala day jubal après nag wér ak wér lay ñëw ngir dund boobu mën a continuer moo tax lii nu def ci wàll wi jënd nañu ci ay garab lu tolloo ak fukki million ak juróom yoo xam ne fay nañ ko ba pare mi ngi ci pharmacie régionale d'approvisionnement ñu ñu bëgg séddale ko loola it poste de santé yi fi nekk ñuy ñaar ak juróom tey sàkku nag tey sàkku nag ci ñu yore gestion wu bërëb yooyu ñu fexe ba loolu suñ ko tegee ci seen loxo mu dem ci askan wi ndax dinañ ko joxe waaye dinañ ko saytu de waaw dinañ ko saytu nag ndax ba nu koy def dañu ko def ngir mu dem ci ñi ko gën a soxla ci njiitalu présidente commission euh, euh, bi nga xam moo yore santé di sama rakk ji di Ndeye faatu jóg dégg nga lan la looy rek dégg nga def nañ fi ay journée médicale mais dañu bëgg muy doon lu wéy pas ay coup pas ay coup d'éclat lu ñu def ci ñaari fan mu jeex léegi na pour wéyal loolu moo tax dañu bëgg mu tas dem ci centre de santé yi poste de santé yi nit ñi nga xam ne fa la ñuy dem bu ñu fay fajoo ji ñu wut ay garab yoo xamante ni moom lay nit ñi di gën a soxla ndax laaj nañu médecin ba mu wax ñu ko bu ko defee bu yeggee ci ñoom ñu mottali loolu pour wax ni événement bi isolé wul dafa dugg ci gis-gis bu gën a yaatu ngir lépp loo xam ne mooy man a soutenir doomu aadama lenn li jëm ci njàng mi lenn li jëm ci wérgu yaramam lenn li jëm ci sécurité loolu danañ ci ñëw après ci beneen jataay leneen yi jëm ci fexe ba dëkk bi yoon di fi dox parce que jàmm nag loolu rek a koy indi ci am rek mu mel ne buñ nee justice dafa war a am justice sociale dafa war a am justice du rek dem tribunal mais mooy équilibre maanaam nit ñi xëy na yàlla bind na te yemalewul waaye ñun duñu yàlla ñun ay nit lañu kon bu fekkee ne dañoo dénk daal ñu war ko séddale ñun dañoo war a defe noo xam ne yëfi nit lay doon mooy fexe ba kenn ku ci nekk la cay sa wàll nga jot ci lii nag xeeb nañ ko ndax li ñuy jox te mu tuddi fond de fond de dotation de la décentralisation boo ko dajalee bu ñu ko jëloon lépp jox ko élèves yi kese sax du tax mu doy waaye tepp-tepp mooy jur yu te lii dul ko xeeb ndax man sama woy jur bu góor bi muy génn àdduna juróomi at la am euh, soxna si nga xam ne mooma jur daana jaay ay séeram ngir jëndal ma kaye te kaye boobu amoon na njariñ ci man kon ëpp naa xet mairie bi ci jamono daanaa fi ñëw bi nu gën a nekk xale te xel mi naxagul woon trop dama daan am note yu baax daanaa ñëw fii di jël si ay prix di ànd ak ku ma bokkaloon classe ku ñuy wax ma jigéen loo ñoo daan jëlandoo parce que ñoo daan xëccoo kon bërëb bi boo fi defee lu baax xale yi duñ ko fàtte ndax ba ñuy ñëw fii booba école primaire la nekkoon te amoon na njariñ nag ci ñun loolu moo tax ñun waruñoo def lu gën a ndaw loolu dañu war a yokk lu mel noonu gën ko yaatal di ñaan nag dans le cadre de ce qu'on appelle le civisme fiscal sunu demee ba wàccee si yëpp kenn ku ci nekk soo waree fay taxe nga di ko fay soo waree fay impo nga di ko fay ndax mooy gir gën a tax mu gën a yomb ci ñépp dina tax la nga mënalul sa bopp bu la songee yow kese boo daan def li nga war a def te mu jëm ci dëkk bi te mu doon tuuti bu ko ñëpp defee kenn ku ci nekk bu la dara dabee te diis ci yow li ñëpp jàppale la ngir mu yomb lii ci lu mel noonu la bokk kon ah ci turu maire bi yépp ñi ngi gërëm ñi nga xam ne ñoo yàgg a sonn madame Guèye ngi ni ñoom imaam Diop a ngi nii oustaz euh, euh, kii euh, Mohamed Diop ak ñeneen ak ñeneen kilifa yi fi nekk yépp ñoo xam ne waa sëñ sëñ Maodo Malick Mboup ñu yore parasol nga xam ñoom affaire orphelin rek maanaam jirim lay toppatoo ak ñeneen ñi fi ne ñëpp dañoo yàgg a sonn te kenn fekku leen ci suñu mbokk yi ñuy tuddee handicapé dañoo yàgg sonn sonni te kenn du leen ci fekk mais lii nag na ngeen xam ne bi waa cees bëggee taxawu leen. ñii ma àndal di conseil de ville u Thiès nga xam ne conseil yi fa nekk ci ñetti communes yépp lañ jóge moo tax benn bopp la kenn mënu ko xar kenn waru ko jéem benn Thiès moo am amul ñaar amul ñett benn cees waa moo am ku ne nag am na quartier boo dëkk quartier bi nga dëkk am na commune bu mu nekk waaye ñun danoo war a joxante loxo comme ni ñu koy joxantee ci biir conseil de ville soo ñëwee conseil de ville quatre-vingts conseils yi fa nekk amu ci kenn ku ci bokk te jógewoo ci benn commune kon c'est dans le cadre de l'intercommunalité bi nga xam ne ville moo ko symbolisé moo ko symbolisé mutualisation bi ville yore ko ci la ñu dajee fii ñun ñëpp nga xam ne lu jaare ci loxo maire de ville ñëpp a ko def ñëpp. maintenant nag ñépp xam nañu ne ah commission yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir conseil de ville bi ñoom ñooy yëngatu tudd naa léegi commission santé ba ñuy def journée médicale moo ko def bi ñuy jógee di yëngatu ci lii ñépp dégg nañ ko Amène Mbaye léegi bi muy introduire wax na ko commission éducation bi soxna maam Diarra Fall mi jiite moom moo jiite liggéey bu mel nii mu mel ne kon dañuy ñaan rek sàkku ci dayab jamono bii ñu toll suñu borom may ñu kàttanu beneen yoon ñu mën a def lu ëpp lii ñi nga xam ne jaar na seen loxo it ñu fexe nu mu gën a rafetee ñu defe ko noonu dara dara dajul lu may yërmande yàlla kon xëy na saa yooyu séddale dina am ñu dul jot wala ñuy xeeb li ñu jot waaye ñu gën a góor góorlu ba beneen yoon li ñuy jëlee ci impôt ak taxu ceesuwaay yi gën a yaatu te ñu seet ci li nga xamante ni dafa war a jëm ci lu mel ni ñu dugal ko ci te mu gën a yaatu bu boobaay it ñu fexe ba nit ñi jot ko ndax ñu yokk ba yëg ko li daal mooy kàddu yi nga xam ne ci wàllu yooyu bëggoon nañ ko wax